yëgalil te nga tegal ma li ma jëlee géej waay. Malick Gakou pourquoi déggatuma ko mu nekk aux avant-postes du combat pour Ousmane Sonko ak tout ce arrive euh, à ses xam nga yow jaxasekat nga. ba tey rek. waaw yow li ngay wax nii c'est très dangereux. yow li ma lay expliquer nii dara convaincre non dara du la <laughs> parce que yow lépp lu xeetoog wàllum opposition bi du la convaincre. ba tey rek opposition bi du la convaincre may. amul parce que yow xam nga mooy problème bi ah. Oh, yow tu connais le ton populisme là. non quel populisme. la. non déglu ma la ma seen seen unité unité de façade ngeen am non non non non non non ah? yow kon yow. yow yow changé discours yow mi yaa changé discours unité de façade ma expliqué la rek. waaw dëgg waaw ma expliqué la eh, fii xanaa ñenn ñi ñoom ñooy ñoom ñooy lijjanti seen bopp. Ah. Malick Gakou depuis le 12 novembre 2022. kenn waxul ne candidat waaw non déglu ma expliqué la rek. yaa ma doon wax léegi ne Malick Gakou ak ay affaire Ousmane Sonko di naan lii nii ci kaw lii nii ci kaw da ngay toog bañ na parrainage yi suba la ak ñoo xam ne ba tey ña nga toog foofu noonu di yaakaar ne waa Pastef dinañ leen parrainer Malick Gakou depuis 12 novembre 2022 la def congrès CCS wax ne candidat la partem investir ko coalition Gakou 2024 investir ko ñi def déclaration def déclaration man maay premier leader bu wax ne man Malick Gakou mooy sama candidat te boobu defagul investiture te gis nga may gis nga àdduna lii yëpp day jeex man Malick Gakou dama mës a wax Abbas ak Bart ne leen yow Bart boo bàyyi woon xalifa tey ñëw ci Malick su ñuy waxtaan man ak Malick boo dugg see damay noppi loolu mooy dëgg yow Abbas Fall boo bàyyi woon Ousmane Sonko tey ñëw fekk ma may waxtaan ak Malick Gakou damay noppi nit ka nga war a àndal rek nga war a àndal man su ma àndul ak Malick Gakou rek. non réew mi ci boppam am na nu muy demee sax kenn dootuma naw déggoo ma de lii du wàllum politik man politique boolewuma ak Malick Gakou naa la wax tey loo xam ne mosoo koo xam. vas-y Malick man ak moom dañu dëkk mu yarama xale ñeenti ak juróomi xaw ma sax man ba fii ñu tollu tey. yàlla dogal ñuy dem ci ay élection saa yi buy dem élection rek dama naan kii comme que moom laa dëkkal man du ma am choix man dama koy voteel te du ma politique du def dara biñ toogee ci yeewi askan wi dañ na Khalifa Sall Dakar Ousmane Sonko Ziguinchor Aïda Mbodj Bambey ñun on était de man ak Mamadou am ñu nekk candidat Guédiawaye Alpha Ba Pastef nekk candidat pur am candidat xalifa Sall ne moom amul candidat Guédiawaye jox na ma kàddoom ñu daal di dem mais Malick Gakou ñu ne ko ñaar ñoom ñoo des parce que réglé nañ lépp mooy caam mi ak ay dara mais Malick Gakou moom su ko neexee mu ne moom candidat la wa ilaa ku bokk ci parti am candidat la wa ilaa mu tranché mu ne non seulement moom du candidat waa partem duñ candidat Mamadou Thiam bàyyil Ahmed nekk candidat loolu du wàllum politique ma nekk candidat ñu dem élection député man maa ñëw ba ci Malick Gakou ne ko président man du ma doon candidat député département man national ba laa jëm parce que leader la te xam naa ne dinaa jege mais li ma daj fii bu ma ko fi naree dajaat dee xam nga lu ma Gakou wax sa ndam li pour mu mat fii ngay toogaat parce que ku fi mën di toogaat day nekk député dañ naan un nouveau leader est né le nouvel homme fort léeg léeg léeg léeg toogal muñ génnee douze millions teg ko ci taabalu yeewi askan wi ne maa leen ko dimbalee dimbalee ko kenn man la ko dimbalee ñu jógee foofu dem li xew xew ñoom seen liste bi sax ñu éliminer ko may ñu ñëw ci ay affaire famille lii sax émission politique la mais su ma la waxee sa kii lii au président Malick Gakou di nga ne noo mii kii mere na ma fii lu yàggul dara de suñu waa kër laa wooyu suñu xalif bi ak suñu sœur ñu ñëw ba dakaar parce que dama koy woo du ma jël. lu ma rek ma expliqué la. non déglu non déglu déglu non non non non non non loolu sa xoolal loolu nekkul sa affaire politique. daraay politique. te lépp affaire famille sax la nag faf man su ma meree sax ma perturbé wu moom Malick Gakou ma waxaat la nag. l'homme keroog bi sama bàyyi génnee àdduna Sénégal li muy réy yëpp moom laa njëkk a woo mu ne ma demal après ñu xool nu dëj bi di mel ma départ wutali farafe yi c'était en 2013 xam nga loolu du tey du jamono yeewi Malick Gakou bàyyi ba ma dem ndekete mi ngi ma topp deux heures ma matin ñu fëgg ma ne ma Malick gën ci ëtt bi ma ñëw gis ma ay otom ndekete mi ngi accidenté di Malick Gakou problème bu ma am ci réew mii moom laa njëkk a fëgg kooku nag su ne dafa bëgg a jiiteem réew man ay dara ak niñ ma yare du ma def jàppale kenn damay gëmm gis nga ay affaire poste directeur de campagne xaw ma la nii fii laa ko teg ma sant tamit waa parteem ses cadres ñii ñoo ma dàq jàng ñii ñoo ma ëpp expérience politique ñii ñoo ma mag ñii ñoo ma ñoo ma ëpp ma moyen ëpp ëpp ëpp mu dogal lii ci rakkam ji ñëpp nangu ko Malick Gakou nag nit la koo xam ne c'est un incompris nit ñi xamuñu ko doomu aadama gënu ko buñ ne nag diw ndax dafa baax dañ naan ndax mbokk yaa ko wax may Malick Gakou noonu mu mel noonu noonu la mel te ba pare dañ ne la présidentielle c'est le rendez-vous d'un citoyen avec son peuple Malick a été toujours au rendez-vous avec son peuple mais du la cinq demal Ziguinchor ndem si yàlla nijaay ba fa nekk di Samba Gakou Jules François Bocandé suñu kaay sax foofu sax dafa xaw a sori ak ay ay ba ci église wu ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci euh, euh, armée ca Ndar Malick Gakou da koo romb rek gis miir bi daanu mu taxaw ñu ne ko lii léeg yéeg lii mu ne lii du yoon doonoo fa maire doonoo fa dara bàmmeelu sur François Bocandé suñu koñ géejawaay ci boppam lan la fa Malick Gakou def nañ wax ni candidat bu ne ñëwal nga wax yow fa nga dëkk ak say mbokk loo fa def loolu tam dafa war a bokk ci critères yi may loolu mooy dëgg ba pare ma doog a ñëw ci njàng mi ma ñëw ci njàng mi parce que toppuñu ko rek parce que suñ dëkkandoo la deret la et cetera et ak jaar-jaaram ak expérience am nekkul nag koo xam ni day wër télé yi ñun dañ koy forcer ne ko grand del dem ci télé yi di wax nit ñi xam yow yaay kan ak lan ngay def may est-ce que xam nga quatre heures de temps bu nekk benn jigéen faatu ci am doom chaque quatre de temps mu taxawal fondation chaque année presque dina génnee deux cent millions di ko def ci fondation bi xam nga lan moo a loolu keroog ba mu ne judd la waajuram wu jigéen faatu affaire boobu topp ko mu créé loolu kër sëñ Touba gii nekk suñu koñ Malika ko moom moo ko doon yeggali jumaa imam Sall jumaa Gueule Tapée jumaa imam si ba ci église bii route bii ñu tuddee Jean Paul II moom moo ne nañ ko ko tuddee c'est bien. gii gii jooy gii jooy laax. je vois que nekkoo directeur de campagne non dëgg dëgg la ma expliqué la la ma expliqué la. club ñun xamuñu woon sax lan mooy Ligue 2 ñun xamuñu woon deuxième division sax xamuñ ko moo ko jël demal équipe bi pendant dix ans def fa lu mat neuf cent trente million presque un milliard moo njëkk a fay joueur. jëli joueur étranger te boobu football professionnel commencé gul mooy ñoom Samba Jara ñooñu ay doomu Géejawaay nekkoon bitim réew mu ñëw indi leen da Géejawaay football club moo ko indi tey fii équipe bi nekk